gannaaw jongante njiitu yi nga xam ne nag moom la ñu doon amal ci Sénégal jamono ji na kuréelu Pastef ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ci njiitul Serigne Cheikh Thioro Mbacké woote woon ndaje mu mag ndaje ma nag bokk na ca la ko taxoon jëgërëm ñii nga xam ne daal ñoo àndoon ci liggéey bi ngir jàppale ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko ba nu gis jéego yu am solo yi nga xam ne am na ko ci jongante yi ñu génn Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak ñi mu àndal di dikkaat ci lu ni mel militant Pastef ndax campagne bi diiri woon na lool yàggoon na lool mais ñu taxaw gëmm boole seen alal ak seen doole ak seen ñaq lépp def ci campagne bi te loolu néewaan na parti bu ko ci def kon nit ku def sacrifice yu mel noonu yëpp bu desee lu dul sant ak gërëm kon kooku warees na ko gërëm loolu moo waraloon ndaje mi ndax campagne bi gis nañ ni métti woon na lool li ci xewoon ci diabolisation Sonko lii la Sonko laa la ak li ci xewoon ci yàq der ak manqué de moyens yi liggéey teewul ku jóge ci commune bu Mbacké 19 fois Touba 93 fois daanu ci 12000 fois ci département bi kooku jàmbaar nga ak ko gis élection yi ni mu déroulé ak li xew ci élection yi ak ni ko mujjee yóbbu niveau débat bi nga man fi am loolu lépp kon ñi nga xamante ni ñoo jël seen i yàq seeni nelaw bàyyi seeni lal dem woteel Sonko ñooñu méritoo nañ ay gërëm ak sant naaw cant gërëm ji nga xam ne moom sëriñ bi daan na koy jëmale ci nga xam ne nag ñoom la àndaloon di liggéey mu nekk nag liggéey bu yoo xam ne nag jamono ji nee nañu sonnoon nañ ci lool waaye nag ca njobbaxtal la ndam dëgg lañu ci jëlee bu ñu sukkandikoo ci sëriñ Cheikh Thioro Mbacké campagne bi 24 jours la ñoom campagne nañ 200 yoo xamante ni dugg nañ ci koñ yi di monter dugg ci quartier yi di monter loolu lépp seen liggéey bu diire la kon ñooñu bu ñu agsee ba ci moment bii nii ndam lu yaatu lii Pastef am ko ci kon ñooñu suyee nañ ci rôle bu ngan di sant Pastef ci kaw ba suuf bayuma kenn di beral cant ak ngërëm nag jigéen ñi li ñu def metti na lool te nag seen borom kër yi ñoo a bàyyi ñu ci amul borom kër dina ñaanal suñu borom may la nga xam ne nag moom la ñu doon amal yëkkati kàddu daal di koy jëmale ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn la ñu ca jàpp moo di élection yi ak njuñ njaaj la ñu ci amal waaye nag yi ñoom fa ñu tegoon seen tànk tey lañ ci gën a dëggu ñu ko félicité ndax mérité wul félicitation ndax dèjà ndam li nga xamante ni yéen moom ngeen ne am na ko gis ngeen ni mu ko amee ak li mu ko jaraloon man jàppoon naa ne bu Sénégalais yi wuute wu doon sax ndam lii dina ko am ndax ndam lu mu préparé la pare 58 pour cent yi moom wala kulli al da ko doon am moom kon nag man jàpp naa ne président Macky Sall mën naa nekk président ku ci nekk mais ñun du suñu président ndax reconnaître ñu ko comme président de la République Sénégal président Idrissa Seck ak ndawi réew mi ndax liggéey nañ ñoom it liggéey bu metti bu diire ba tax nañu mën fi lu nekkoon suñu objectif mooy ku fi mën mu nekk président Macky Sall ndax gis nañ ne respecté wul Touba gis nañ ne respecté wul waa Touba ba tax na résultat yi ñun bu fekkoon dañu ko doon wax résultat yi bi mu génnee firndeel na ko ndax ni ko Touba sanctionné mosuñ ko sanctionné benn président de la république te luñ gën gën di sanctionné ndax dèjà liggéeyu fi te ay leaders yu fi nekk xamadi nañ respecté wuñ population Touba bi loolu yaakaar naa lu gën di dem Touba dañ koy gën di sanctionné Macky Sall bu fi nekkoon ak candidat boo xam ne aw dàll aw dàll dàll woowu dina gañ Macky Sall biir Touba. ñaawlu bu baax xoqatal ak jaay doole gi nga xam ne dañoo jàpp ne dafa am ci yenn leader yoo xam ne jamono ci dañu leen a jàpp di leen tiital. naan eh, bu ñu ko def xeexu si naan sama yoon nekku ci du ma ci wax man li may wax mooy na leen bàyyi immédiatement ndax li naan liy raam ci ñag bi la jëm soxlawul ñooñu ñim gën soxla mooy kilifa diine yi ko fi doon jàppale man ragal naa ne diir bu néew dina ca karil kenn ay dossier ñëw dumale ci kaso bi ndax liñ ko digoon defu ko te mere na leen gone yi muy jàpp soxla wu ne ñii la soxla ñii lay wuti waaye li mooy opposition bi nañ gën a jàmmarloo kii ndax baadoo la du jub gàcce te tabbiwu ci te Macky Sall baadoo la la baadoo la pire la Serigne Cheikh Thioro Mbacké daal di tëjooy kàddam daal di gërëm ñii nga xam ne ñooy taskatu xibaar itam ci liggéey bii nga xam ne àndoon nañu ko ñoom li ñu dënmal fas yéene nañu yile taskatu xibaar daal leen ciy gunge